est-ce que chaque fois damay dégg dama bàyyi dama démissionner c'est-à-dire que vous parfois parce que y a des problèmes financiers ou bien c'est le droit qui pose problème parce que man mun ma jàpp ne mën nga nekk nit ki parce que damay jë man su ma dégg ngay wax certes vous êtes un homme principe mais parfois y a ces principes yoo xam ne parfois si l'intérêt supérieur de la nation taxaw parfois je me dis mun nga peut-être yaakaar naa nga bàyyi du daw mais dama gis sa démission yeeg sa bàyyi yëpp parfois da koy problème toujours c'est des problèmes de texte toujours vous collez au texte est-ce que parfois le texte règle tout. Euh, ñu euh, bàyyi. Euh, Amadou Amadou après comme ça nga ramasser nga tontu. non c'est lui je lui il note. comme ça il il note pas.

<laughs> bon monsieur le ministre est-ce que mu tax nga mu indi fii beneen question. <laughs> donc moom. bon voilà beneen question bi c'est que est-ce que c'est le droit qui pose problème. voilà c'est le droit qui pose problème. de toute façon de toute façon. ci li ma déjà moom question am daf ci tontu nee na le code des marchés publics et le. l'un des codes les plus malmenés. ça fait partie des codes waaw. waaw l'un des codes. loo tax ma ne dama ko tënk ci code yu ñu gën a salfaañe la. pour ñuy déglu donc ñaar moo mun a am xam nga état. état de droit mooy état boo xam ne dafa soumettre yow yaa ma ko gën a xam mm-hmm. au droit à la loi boo tegee texte mm-hmm. ne man texte bi daf may gêner mm-hmm. da ko koy koy appliquer ngeen dem changer texte bi à l'expérience pour li ngeen di def mun a dëppook yoon mais pour ngeen commencer ne intérêt supérieur de la nation moo tax ñu teggi lii rek ëllëg day am beneen justification pour intérêt supérieur de la nation moo tax ñu tegg lii ba mu yàgg dootu leen amati loi te loi président de la république lépp lu mu ko lu muy def loi moo ko moo ko jox sañ-sañ boobu. bon bu ñu commencé loolu tamit ñun bu ñu xoo toogee ba mu yàgg ne président li muy def dëppoowul ak intérêt supérieur de la nation noonu dootu ñu ko obéir. président tant que mu ngi tënku ci intérêt supérieur de la nation est-ce que mën nañ ko def reproche. et y a rien au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation. je retourne la réponse d'une autre façon. Mhm. boobu laa gën boobu moo gënoon gàtt. l'intérêt supérieur de la nation. moo taxoon man ma bañ. est-ce que vous pensez que. ñu dellu si ci affaire pétrole beeg yooyu mais est-ce que vous pensez que benn doxandeem bu jóge fële defu fi dara tekkiwul dara andiwu fi dara. yelloon na ñu jox ko suñu contrat suñu pétrole bi mu am ci alal ju dul jeex te de liggéey lu ñu dara man intérêt supérieur la nation moo nekk foofu ah donc l' intérêt supérieur la nation moo tax justement ma ñu bañ nga def ne mbiru Eiffage bi fan la mujj ñun nous sommes la seule autoroute au monde boo xam ne nous avons payé l' autoroute très cher ba pare ñu continuons à payer amul sens non sens total nga fay autoroute bi très cher ba pare di fay péage très cher te yow yaa dugal xaalis état ban ban intérêt supérieur la nation moo nekk foofu donc intérêt supérieur de la nation c' est d' obéir au texte par parenthèse code de marché publics léegi lu tax léegi déggatoo ci coow lu bëri sax dañ ci dëxëñ benn article 81 boo xam ne offre spontanée mais loolu c' est yaataa yi mbay non mais pourtant je ne dis pas offre offre spontanée ak euh, appel. point de vue ak appel appel restreint ak euh, gré à gré mais pourtant c'est légal. évidemment maître. légal maître. les dispositions dérogatoires. Ouais. effectivement prévues par le texte donc. sont encadrées sont légales mais dans la mesure. elles sont dérogatoires et exceptionnelles. maanaam bu fekkee nag dañ ko def yoonu tool. Mm-hmm. nekk nekkatul dérogatoire. de la mise parce que lii le gré à gré dont vous parlez mooy disposition dérogatoire la. mais mais lan moo indi lan. non non moo indi lan disposition moo indi lan. moo indi ko Covid bi ni ko gars mm-hmm. ni gars yi xaalis bi. monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur le ministre. waaw <laughs> ah, mooy lay déglu le gré à gré. du disposition dérogatoire man sama avis parce que xam nga lu parce que code de marché public dafa am il a trois ou quatre conditions dans lesquelles on peut lancer un marché c'est-à-dire ça tout dépend des parce que en cas de de circonstance exceptionnelle wala bu nee dafa am euh, hmm, maanaam euh, circonstance bi maanaam période bi dafa dafa gaaw jarul laaj mu ne lancer compte boobu mais yoon waxu nga tëbee boobu daf na bu nekkee y a pas d'urgence bii ngay jël su nekkee situation bii jël la mais bu nekkee dafa am sur sur euh, urgence mun nga jël gré à mais que ça soit respecté que le candidat yi ñu respecté ko que condition de placement yi yow Thierno bi ngay nekk bi ngay nekk na tax marché gré à le gré à gré pas illégal hein non non du c'est dans le texte maanaam ci ci code des marchés publics dañ ko encadré et attention boo bëggee def marché par entente directe te lu ñuy wax dafa am yoon aussi yow rek moo lay neex nga ne bon maa ngi gis man Mansour rek ñu def marché non da ngay jaar DCMP mhm. ñu may la autorisation bu ñu la ñàkkee may autorisation mun nga def recours à la l'ARMP dafa compliqué parce que dafa publicité bi dafa et en tout état de cause dañu ne l'intérêt intérêt bu tax ñu teg texte yi ci seetlu lañ ko teg seetlu yu yàgg yoo xam ne fépp ci àdduna moo fa nekk te rawatina ci suñu réew yi mm-hmm. mooy bu ñu bëggee mbir mi gën a oyof ci wàllum njëg ci ci ci askan wi gën a baax aussi nañu fexe ba di ko jaarale ci yoon yii mais bu ñu jéggee yoon yooyu rek bàyyi ko foofu di def neneen boo moytul mu jural ñu leneen ñun bu ñu ñëwoon ci nguur gi tey jii nii dina am ay procédure yoo xam ne certainement procédure d'urgence lay doon mhm. mais déjà procédure d'urgence comme dañu am obligation rendre compte askan wi ci biir procédure d'urgence yooyu la ñu gën a fësal askan wi ci site yeeg assemblée nationale ak ñoo ñëpp rendre leen compte que affaire bi nii la demee nii lañ ko doxalee parce que lii moo ko waraloon te jaar nañu lépp lu ñu droit bi may ak lépp lu droit bi exiger ci ñu parce que entente directe muy gré gré signifiewul absence de règle ah. du tout signifiewul lu la neex def. effectivement dañ ko encadrer même moom dañ ko encadrer. mais mais Thierno. su ma bi ma lay xool léegi sama xel xam nga lan la dem le titre du li du livre de de de Latif sur Wade Abdoulaye Wade un opposant au pouvoir. Euh, yow ah. non yegguma ci boobu. wadd un opposant au pouvoir yow euh, ci sa parcours yëpp da nga nekk un opposant au au au pouvoir interne au pouvoir yaa ngi dellu souvent euh, ci affaire autoroute à péage bi et euh, euh, mésentente yi nga am ak l'autorité sa l'autorité présidentielle yëpp euh, ci ay affaire contrat yow da ngay fàtte ne Macky Sall tamit dafa am vécu bu mu fekkee xam nga Abdoulaye Wade bi muy nekk dans l'opposition dafa jaayoon Sénégalais la renationalisation euh, de la Sénélec par Elio Hydro hydro bi ah mu ñëw nguur matérialiser ko et on s'est rendu compte que sa était une catastrophe Abdoulaye Wade ñëw am euh, am mésentente ak Kumba Resources hmm. l'État du Sénégal a été condamné ñu ñëwati ci dossier ñu amaat beneen problème ak ci affaire dossier ArcelorMittal la responsabilité d'un président de la République c'est de ne pas entacher la signature du Sénégal Macky Sall bi muy wax naan bu ñëwee dafay renégocier le contrat bi mu ñëwee ba toog xam na ne am na lu mën a nekk am na lu mënul nekk te il ne pouvait pas se payer le luxe d'un autre procès contre un géant multinational au risque de devoir désacraliser la la la la la signature du du, Sénégal te préoccupation bi Macky Sall am yow amoo woon peut-être préoccupation boobu ba pare le président République moom la ñu fal yow faluñu la moom bu la waxee mais nga nga tegu ci yoon en faisant en l'aidant en l'aidant même à faire respecter la loi mais yow da doon taxaw baraake comme si vous êtes investi deux mandats nga ne ko du ma ko def. Euh, alors que may mën a. il faut ñu avancer ci point boobu parce que j'ai l'impression que saa yu fi ñëwee point boobu la ñuy développer mais wax naa la ci njëlbeen te mun naa la jox misaal bu leer lu tax lu Macky Sall moo inventé loi yi dafa tënku ci loi yi. da may may ma noo ma leeral loolu pour yéen ñëpp ngeen comprendre sénégalais yi comprendre après ñu mën a jàll du makk Sall moo inventé loi yi il est soumis à l'autorité de la loi mënul ñëw nag ne dama am bilan bu ma war a défendre dama war a am kii donc damay teg loi yi fële président de la république mu ma jox instruction ni bul topp loi parce que ëllëg bu ñu ma woowee du ma protéger. benn mais daf la mas a wax bul topp loi defal nànk rek ma ñëw defal nànk ma. non daf la mas a wax bul topp loi wax oui ou non. defal nànk ma ñëw nee naa la danga may may ba ma eggale. li ñuy def noonu procédure d'urgence yi ñuy justifier nee naa la am ñu ci ay misaal yu fës yoo xam ne bu ci intérêt Sénégal amul njeexital bu ñuy wax te def nañ ko procédure d'urgence mënoon nañ ko def procédure normale. du changé dara mooy Prodac bi gis naa woon naa leen foto daku itato yi ñaata milliards ñoo fa dugg daku CFA boo fa demee ay seeru yu gën a parmi yu gën a sophistiqué au monde ay bras articulés yuy def yuy yuy yuy kii yi yuy arrosé yi cinquante mètres de rayon maanaam bu tourné benn yoon rek cent mètres tooyal na ko su ba tey yaa ngi foofu di pourir comme yenn milliards ñoo fa dugg ñaata xëy la jur deux mille mille 2014 2023 ñaari dagg yi sur quatre fonctionné wul yi fonctionné yi mooy CFA ak Kër Momar Sarr Fouras amul mille personne yu fay am xëy ça devait sortir 410 milliards génnagul ay milliards mais loolu tax man en tant que qu'ingénieur loolu mooy beneen problème bi mooy ab médecin doo ne man directeur hôpital bi laa rek dama la ne nga doxalee nii opérer kii urgence la déedéet docteur bi moo xam. les règles et les norme et les procédures yu mu war a jaar pour def opération wala bañu ñu def opération kay da nga koy ne bëgg naa malade yi 90 pour cent yu fi dugg bu ñu leen mën a sauver wala 99 pour cent yu war a mën a sauver ñu sauver leen sauver leen à temps à moindre coût am déet mm. mais doo mën a. doo bëgg a nekk mënuñu sauver une vie à moindre coût. on y quel que soit le coût il faut non, sauver la vie. oui si possible ah. à moindre coût. je n'ai pas dit à coût zéro mais kooku problème économique la rek parce que l'économiste en même temps qui parlait c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose à moindre coût. si possible de le faire à moindre coût on le fait en optimisant les coûts parce qu'à la fin si on si on gaspille de l'argent on ne pourra plus sauver d'autres malades derrière. mais est-ce qu'il tant qu'ingénieur. bu ñu ma newee naa def loo xam ne amoon mon âme conscience je vois que kii bu bokk fi jaaree mbir mu du egg wala bu eggee tamit du amel njeextalu Sénégal lañ ko def pour def ko pourquoi je le ferai pour urgence waru fit expliquer xool on va pas perdre no temps sur ay question marché urgence et cetera lu on est à l'heure du bilan président Macky Sall il est là de 2012 à 2023 léegi 24 bilan lañ toll mais tag baa ngi fii c'est-à-dire que le plus criminel dans ça et on, on peut multiplier les, les exemples urgence nañu def autosuffisance en riz rendez-vous 2017 hmm. puis 2019 gars yi dem xëy jëndi ay tracteurs en urgence defuñu benn étude hmm. moi en tant qu'ingénieur je, je termine là-dessus s'il vous plaît ah, c'est important ngeen que sinon da ngeen di gëmloo Sénégalais yi que man damay bañ parce que damay bañ base nangam nangam fekk man moi je de l'expérience am na yoo xam ne bu ñu ma ko defloo xam nga expérience homme d'état c'est pas amul benn école bu ñuy jàngee homme d'état hmm. le président Wade bi ngeen nii boo moytu bu ñu ko joxaatoon réew mi dina defaat yeneen erreur ah am na ñu def 30 ans dans euh, à la tête d'un état mais ah, ah, mais, mais mais je de là-dessus c'est important. Mm. mais l'expérience d'un manager d'un gestionnaire d'un ingénieur mun na la wax ni lii du xëy bu ma ko defee moi je peux ñu ne ma euh, il faut convo euh, Eh, eh, eh, kii euh, commander des tracteurs yoo xamoo sol bi ngay yóbbul tracteurs yi yan coopérative ñoo koy utiliser yan pièces de rechange ñoo ko nga dem commander ay centaines de jox ko Amadou am yow gros producteur nga maître amaat am euh, Mansour am yow euh, influenceur nga bu la gisee tracteur bu yàggee di nga gars yi dinañ topp ci mbéy mi nga dem gaaree sa tracteur sa buntu kii amul pièce de rechange mais mais mais attendez merci léegi bàyyi on a vu tous les marchés c'est comme ça de les bus de Dakar Dem Dikk quand le ministre des transports vient à à l'Assemblée nationale nii les bus on n'avait pas de pièces de rechange batterie day manqué ñu bàyyi bus bi muy tàkk Mansour Faye moo ko wax Assemblée nationale je te laisse dañuy bàyyi bus bi mu tàkk toute la nuit parce que dafa manqué batterie ba ba ñuy commencé commandé 400 bus yi est-ce qu'ils ont mis en place un mécanisme pour tirer leçon Dakar Dem Dikk ak Sotrac bis bu bleu yi ak bis yu vert yi Sotrac yi nii léegi maintenant on va mettre en place un système de maintenance rigoureux d'approvisionnement en pièces on va et cetera un système de suivi des bis loolu mooy étude mais étude du ne non soxla nañu 450 rek gars yi jël seen kii dem Inde tëdd ci ay hôtel de luxe def ay commande après indi ay bus ne gars yi inauguré. ah merci ah, Amadou